maa ngi lay <clears throat> maa ngi lay fay. tur bi nan la. Ismaïla laa tudd. papa seetlu nañ dëkk bi chaque jour ñu dégg fi benn rey bu bees am na ku bu démb papam am na benn soxna bu ñu tamit Pikine ginnaaw raay noo ko jàngatee en tant que man kay nit moom bu fekkee dafa dem ba jàpp baayam bi ko jur rey ko rendi ko dégg nga kooku xam nga ni nekkatul nit te loolu du éducation kenn kenn kenn lu dul drogue bi dugg ci dëkk bi. yu bon yi malfaiteurs yi nga xam ne bii ñoo ne ci dëkk bi di rey suba at ngoon réew mi dëkk bi war nañ ci taxaw parce que yii masu fi am ñun xamuñu rey waaw rey nit xamuñu ko kon nag état bi moo am dur moom moo moo moo war jël ay responsabilité am di di di ñi nga xam ne bii ñooy def ci bon yooyu rey leen ñoom comme ni ñuy rey doomu aadama yi. waaw di ko ñaawlu bu baax di ci masawu di ci jaale képp koo xam ñàkk nga ci mbokk mais tam dafa am loo am ba des parce que bu fekkee ne yàlla dafa wax. ñu dindi waxu yàlla teg ko fële bëgg a teg suñu wax ci nii rek la ñuy dëkk ndax alxuraan dana wakkatab naa fiya an nafsa bi nafsi waxay na bi xay ni walan fa bi lan fa wa lus na bi lus wa sinna bi sinni wal képp ku rey nit nan la rey mais léegi bu fekkee dañuy rey nit ki ko rey nit ñu bàyyi ko léegi mu dem di taxawaalu ji wala ñu tëj ko un an wala deux ans bàyyi ko mu dem rey du fi mës a jóg pour rey bi jógee fi mooy ku rey nit nan la rey loi da fekk la fa rey la ko defee booy bi dëkk fii Kaolack muy lu ñaaw tant que peine de mort amut li rey yi du fi jug dorog ci la bokk yamba ci la bokk deuxièmement ñàkk gu métti ci la bokk parce que gis nañu temps yi dëkk bi dëgër gi mu dëgër booy léegi bañatuñ ci dara dañuy foxati te léegi yëpp ci kaw néew ji doole yi lay dal parce que ñi nga xam ñooñu jiite ñoom fexe nañ ba mën a aar seen bopp bu ñuy dem ci tali bi am nañ moto yu leen accompagner am nañ seen police am nañ seen gendarmerie mais pa ñun ñi nga ni tey ji ñun ñooy population bi nga xam dañu néew doole man amoo koy sécurité sa kër ginnaaw ñun yàlla rek lañu yaakaar te ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite réew mi ñoom ñoo ngi sécurité seen bopp fu ñuy mën di dem ci àdduna bi am nañ ku leen sécurité ba pare léegi boo waxee droit de l'homme jug fi yor seen làmmi ñu réy di sonal nit ñi mais ki dee bu fekkee l'homme la ki ko rey di l'homme léegi ki dee pourquoi moo amul ay droit nañu waxante dëgg droit de l'homme bu ñu ko dee wax tamit ki dee tam dafa am ay droit kon ki ko rey dañ ko war a rey loolu mooy jeexal wax ji tant que defuñu loolu Sénégal solution mais lu metti la xam nga tey nit bu fekkente ni mi ngi ci euh, ligigam rek tey jëlul dara munu rey nit mais tey nga màndi tux li may bañ a tudd ba yàqu pour rey dalay yomb mais xam nga tey li li li li am fii rek muy xaw ma ma xaw ma tey jii dafa metti jàpp sa waajur ji la bi jur bi la sukk jur nga jam ko paaka ba mu seddu guy mais loolu fu ñu ko teg jamono ji fam nekkoon ba tey mi ngi fi de mais nit ñi ci boppam seen jikk yi moo yàqu te rey gi dafa dafa dafa dafa yomb man ni ñu ko waxee jàpp nit rey ko nii nii nii comme mala. rey ay si nekkul ay rancunier la maanaam nit nit ki gis sa bàyyi daf loo xam ne nga teg sa bët mu naqari la trop nga xam ne mënoo ko muñ mën ko si rey. waaw rancunier bi xam lu koy waral sa bàyyi def loo xam ne waru ko def wala nga gis sa damay gis ñoo xam ne seen bàyyi day tëdd ak seen jabar te mu ñoo taxaw si mbedd di ko wax kenn ensuite ñoom loolu ñu teg seen biir xol dañ koy téye mënuñ ko téye. après ñu def def ñu ñaaw jooju. Ah, ma ko jàngatee jeunes yi yarin bee des rek en plus euh, ci parents yi am na parents yoo xam ne comme ni nga ko waxee sànq rek xam nga nit tiim nit di ko def yeneen yi dafa ëpp quoi xam nga tey jii nga jël sa paaka di ko góor doomi aadama loolu ku nekk naturel mënu ko il faut nga am loo utiliser ba pare door koo def. déedéet nekkuñu seen ko tranquille de. nekkuñoo ak moom tranquille wante nag lépp loo ci mën a gis lu nekk rek ci ñun waajur yi ci lañ ci lañ ci laay dooree na wàcc tuuti ci waajur ci laay dooree ndax euh, da nga gis loo xamante ni nii góom la buy nekk sa biir kër dindi woo ko bàyyi ko ba mu dem ba sax ay reen boobaa dootoo ko mën a tey dindi ndax lii gën a lii gën a am solo mooy sa doom bu nekkee tuut tànk sax nga gis ko mu yore benn 100 francs boo xam ne jox war nga gis ko 100 francs fan la ko jëlee loolu nga gis ko ci beneen comportement boo xamante ne nii bokku la bi nga def ci moom war nga gëstu loolu wante ñun lu gën a bëri en général ne ci këru famille sax ci loolu ci ñoom lay ëppee da gis sa doom def defa boo nga ko mën a faj nga demee ba kenn xamal ma nga ne da nga koy nëbb loolu ngay nëbb saa su nekk day xëy di gën di màgg day dem ba màgg ba far ëpp la doole nag dootoo ci mën dara dañ naan li nga war na faje ci biir ne nga dem ba ci pénc bi ñu koy faj boobaa ñëpp yëgandoon nañ ko xool nañ léegi-léegi jeunes yëpp dañuy jël li nga xam te ji mooy drogue bi di ko utiliser. drogue dure bi. est que nekkul tey ji si côté parents yi tamit. drogue bi la bari ak drogue dure bi ñuy fon dégg nga at at yeneen ak yeneen. mais loolu war nañu xam na ne ñoom ñii nga xam ne ñi ñoo nekk ci dëkk bi xam nañ fi drogue bi génnee xam nañ fan koy liggéey xam nañ lépp kon nañ ci teg may nañ ci teg tànk dimbali nit ñi population bi parce que nit ñi tiit nañu ah amuñu fu jëm nag waaye nag chaque jour nga rey rey rey rey rey métti na lii daal man la la ci xam ñoom daal ñiy rey nan leen rey drogue bi fi muy jugee gars yi xam nañ ko nan jël drogue bi ñu fi muy ñu ñu ñu tëj bunt yi may nit ñi jàmm. laa la wax sànq moom laa la wax sànq maanaam maanaam nit ki tànk yaa ngi def loo xamante ne day da ngay tàggaloog sa sago rek toujours mën ngaa def loo bëggul def moom laa la wax sànq nee naa la yamba bi la bokk drogue bi ci la bokk ñàq gu métti ci la bokk. parce que kii dem di agressé nit sax day def loo xam day tàggoog sa gom pour mu mën ko def mais bu dee nit ak nit nga ànd ak sa xel rek jàpp naa ne waroo mën a jël paaka sax di ko jam nit kon il fallait que yi ñuy jëfandikoo yooyu foog ñu di ko tere mais bu fekkee yi ñuy jëfandikoo ñu ngi koy bàyyi mu fi dugg nu mu neexee ci dëkk bi comme neex jël jëfandikoo musiba rek mooy am ci dëkk bi parce que yar amatul dem nañ ba léegi daara yi nga xam mooy defar ñi ngi xeex daara yi pour daara yi jógee fi sëriñu daara jéng taalibeem pour defar ko ñu ne ko jàpp ko dugal ko ci kaso bi na ko waroo jéng te xale bi bu sàccee wala mu jaay yàmbaa subaa ñoom ñoom jéng ko ñoom dugal ci kaso bi jéng bale ak jéng bi la lan moo ci gën kii da lay jéng pour defaral sa àdduna ak sa àlaxira ak ki lay jéng dugal la ci kaso bi ban lañ ci war a tànn mu kooku lañ war a tànn mais kooku lañ gën a ñàkkal fayda te yàlla moo wax ci alwa siñ bor yërënte bi salaa salaam moo ne euh, xayrakum man taxallamal quran wa allamahu ki gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan ba pare di ko jàngale léegi kooku lañ gën a ñàkkal fayda tey jii boo fi ne yor sa làmmiñ rëy ñu jox la carte carte waaw parce que yaa ngi kaasal président léegi sëriñ boobu ñu jàpp ko moom dugal ko ci kaso bi parce que moom dafa jël tey ji xale bi bu ñu ko jëngee tey bu màggee dana mucc ci jéng yi nga xam ne ñoom ñu ngi ko jéngaat nit ñi mais 100 mètres gee ñaata booy lañ fa jël nëkkas leen fa du jeex du xaj ban solution moo ci am tëdd fa 5 génn ñu bala ngay taxawaal ji waat amoo métier amoo dara loo def da ngay defaat su sudul noonu nga delluwaat. non loolu li Seydi Gassama wax man d'accord ma ci parce que li nga xam ne ni waxuma la rey mais loolu tey ku koy jëfandikoo boo ko baw da ngay ak tey euh, buñ ko autorisé woon loolu musiba la cim réew kon loolu day gën a yokk man loolu d'accorduma ci mais daal man li may li may xalaat daal population bi ci boppam ñi nga xam ne tey ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo yor askan bi ah ba ci ensemble ñu voté ko parce que tey ku rey ñu rey la amoon na fi mais loolu lu tax mënuñ ko indiwaat man loolu laay ñaan président di ci di ci di ci di ci di ko tàllal loxo ku rey ñu rey la kon dina wàññi ko parce que réew julli la ñu nekk ñaari fan ñaari fan ñetti fan yu nekk nga ne rey nañ nit mais bakkan du caaxaan tey boo yoroon milliard mënoo ko jënd. mënoo ko jënd dafa yomb torop dafa yomb torop mais mais mais ba kañ ba kañ. ni kuy dorogee fii yaa ngi yóbbu sa bopp waaw parce que doomu aadama yi kenn ku nekk yoon bu baax bi nga fi yoon bu bi nga fi ku bëgg jël yoon bu bon nga koy bu baax bi nekk fi àdduna bi moom képp luy def rek na nga lu baax moom solo parce que àdduna bi dafa jeex pare nit ki lépp loo fi jaay rek fekk am na ku ku la ëppale woon dem na ba ko fi parce que lépp na rafet parce que ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi Sénégal la musulman bi chrétien bi ñoo fa bokk yem. waaw ñuy xàcc noo dóorandoo ñoo bokk mooy comme ni ma la wax rek xam nga tey ji sa doom boo gisee ci moom comportement boo xam gisoo ko woon ci moom a dindi xam nga war ko mën a dindi mooy kii ma la wax ne la boo gisoon mu yore 100 francs war a xam ni 100 francs bi fan ko war a jëlee tey ji boo ko gisoon tey muy tux te defoo woon ci moom muy tux war nga koo mën a dindi ndax ki taal maal boroo ëllëg moom mooy taal yàmba ki nga xamante nii tamit tey ji moom nga gis mu jënd canette bu 100 francs ëllëg mooy dajji bitéel te loolu yëpp duñ koy gis am na ci ñoo xamante ne sax du ñuy dem ba di ko nëbb seen papa yi di ko nëpp nëppal affaire na bu ne ëpp leen loxo papa da koy yëg maam da koy yëg fam ñëpp a koy yëg balaa caag nag boobu nga am ci benn taxawaay boo xamante ne nii luñ naan bay ci sa wewu tànk soo mu mujjee wala bay ci sa wewu tànk di nga bay di nga bay ci digg public bi te ñëpp duñ koy xam moo indi lii yëpp rek lii daal booy laaj xam. ñàkk éducation de base bi ci population bi. de base bi amuñu ko ci parents yi la ci papa yi la wala ci yaay yi. ci kër gi la ci biir kër gi. ndey ak bàyyi fay dégg nga jur leen éduquer leen xale yi nag ñooy dem ak seen i jikko yoo xam ne nii seen i léegi seen i bàyyi sax xam fu mu ko jëlee waaw su ko defee ñooy ñooy provoqué yii rek. Ah, parce que papa yi yaakaar nañ amatuñ temps ñoom dañuy xëy dem. waaw parents yi suñu yaay ñoo ne ci kër gi. waaw est ce que ne ko yaay ñoo xam lépp pare ne pat moom. waaw ñoom ñaare nag ñoom ñooy ñooy nëbbu dégâts yi quoi parce que bu fekkee sa doom dafa def lu mu warul def nga war ko wax bàyyam di di ko nëbbal boo léegi mu def leneen. non mooy li ma la wax ñàkk gu métti daf ci bokk ñàkk gu métti daf ci bokk. mais nag mais mais en général xool naa parce que parents yi bu ñu xëyee ñoom dañuy dem yaay rek la ñuy bàyyi ci kër gi. bu ñu demee wuti ci tey xale bi tey jàngul jàngul école jàngul alxuraan jàngul dara ñu ngi ko bàyyi muy taxawaal bu fekkee benn solopaar boo xam moo dëkk ci koñ bi di jaay yàmba day jël booy di leen ci mën na ko bañ parce que xale bu fekkee xamul xaalis tey nga jaaloo ko suba nga may ko 2000 du naa suba nga may ko 5000 daraan affaire bi fii la day dem di jaay ji parce que moom du ci xam dara kon am nañ ci benn part de responsable bu mooy nañ yaraat seen doom yi jàngali seen doom te gis nga daara yi ñuy xeex bis bu fi jógee mooy musiba am na ci dëkk bi nañ delluwaat ci alxuraan delluwaat ci diine yi koo wax mu ne sëñ Tuubaa laa gëm alaaji Malik laa gëm Baay Ñas laa gëm maam Limaamu laa ñoom ay daara lañ fi bàyyi te doo ko jëfee te doo bu ñu demee ba daara yi nga xam mooy defar tey ñu te tubaab du la jàngal mukk nooy defaree sa àllaaxira nooy defaree sa àdduna rek lay la jàngal <laughs> nañu waxante dëgg tubaab nooy defaree sa àdduna kese mais du la jàngal mukk nooy defaree sa àllaaxira alxuraan nag moo lay jàngal ni nga defaree sa àdduna ak sa àllaaxira léegi nag loolu bu fekkee dañ ko bëgg a ñàkkal fayda teg ko fële bëgg a jël topp tubaab bi ñu ñu wax ay droit de l'homme ak nga léegi li ñu bëgg a appliqué ay franc-maçon rek ay góor jigéen ak lu ne léegi dem nañ ba jikko yi moo yàqu te réew pour ñu mën a defar foog ñu defar jikko yi nañ defar jikko yi parce que yonent bi salaa salaam bi ko yàlla di tagg ci jikko la ko tagg bu waaye du ay Abdalaay sa baay ay Aminata mooy sa yaay dañu wante dëgg tant nag defuñu loolu ku rey ñu rey la du fi mës a jeex enquête 221 ba tey maa ngi nii ci Grand Yoff koñu église bi ba tey maa ngi dugg laaj population Sénégal lu ñu gisee li nga xam tey ji moo yëngal réew mi chaque deux jours trois jours daanaka ñu ne am na ku faatu xamuñu ndax rey yi lan moo war a rey yu bëri ndax dafa am lu ñuy jëfandikoo ba dañuy tàggalikoo ak seen sago am na ku ma benn ku sama benn mbokku taalibe bu ma dajal nii dama koy laaj rek moom nu mu gisee loolu ku baax nuyu naa la. waaw fay nañ la. tur bi nan la. Euh, Lamine Diop la. Lamine Diop yaa ngi enquête 221 Lamine Diop ñoo jàngatee chaque 2 3 jours rey yu bëri parce que dama romb sax dégg la yow nga ciy wax. dëgg la da nga fekk léegi ñu ciy débat euh, da nga fekk léegi ñu ciy débat mais lu metti la xam nga tey nit bu fekkente ni mi ngi ci euh, ligigam rek tey jëlul dara mënul rey nit mais tey nga màndi. tux li may bañ a tudd ba yàqu pour rey dalay yomb mais xam nga tey li li li li am fii rek muy xaw ma démb xaw ma tey jii dafa metti jàpp sa waajur ji la bi la jur bi la sukk jur nga jam ko paaka ba mu seddu guy mais loolu fu ñu ko teg jamono ji fa mu nekkoon ba tey mi ngi fi de mais nit ñi ci boppam seen jikko yi moo yàqu te rey gi dafa dafa dafa yomb man ni ñu ko waxee jàpp nit rey ko nii nii nii comme mala pour lan. Lamine Diop rey ji dafa yomb. parce que barki démb Seydou Diakhaté génn na fi ne dañoo bëgg autoriser drogue bi est que nekkul loolu tamit day gën a pousser xale yi ñuy drogué wu tàggatoo ak seen sago. non loolu li Seydou Gassama wax man d'accord ma ci parce que li nga xam ne ni waxuma la rey mais loolu tey ku koy jëfandikoo boo ko baw da ngay dof asamaan ak tey euh, buñ ko autorisé woon loolu musiba la cim réew kon loolu day gën a yokk man loolu d'accord ma ci mais daal man li may li may xalaat daal population bi ci boppam ñi nga xam ne tey ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo yor askan bi. ah ba ci ensemble ñu voté ko parce que tey ku rey ñu rey la amoon na fii mais loolu lu tax munuñ ko indiwaat man loolu laay ñaan président di ci di ci di ci di ci di ko tàllal loxo ku rey ñu rey la kon dina wàññiku parce que réew julli lañu nekk ñaari fan ñaari fan ñetti fan yu nekk nga ne rey nañ nit mais bakkan du caaxaan tey boo yoroon milliard munoo ko jënd mënoo ko jënd dafa yomb trop dafa yomb trop mais mais mais bakkañ bakkañ dafa doy. Lamine ce que nekkul tey jii nii xale yi nga xam ne dañoo nekk ci kër yi di tux yamba wala di doroge wala di jël naka sulul noonu seen parents yi xam nañ ko mais dañ leen koy nëbbal waa xam nañ ko am na ñoo xam ne seen parents yi ñoo leen koy jox di leen ko neexalee pour lan gis nga ndaw dangay ngay dem liggéey tam moytu dorog baaxut daf lay yàq amul benn bénéfice lu dul naka su dul noonu rek ci la lay dugal man d'accord ma ci parce que tey gis nga nit dafa foor kon doomu aadama dafa foor tey bala koo def naka su dul noonu rek il faut nga tàggoog sa sago ñi nga gis ñu koy def ñi ñëpp dañuy màndi dañuy dorge wala ñu tux seen yu bon doo ko man a def mais fekkee nit normal rek mënoo rey doomu aadama doomu aadama du caaxaan yàlla rek moo ko moom moo ko yelloo di def. mais yàqu-yàqu yi nga gis tey jii jeunesse bi yàqu ko ci côté parent yi seen yaay la wala seen papa yi. waa ñu ci bëri nag dañuy nëbbu di ko def am na ñoo xam ne tey seen parent yëgu yëguñ ko mais am na ñoo xam ne seen i parents yëg nañ ko mais dañ ci joggi seen tànk tey fekkee da nga am sa doom majeur muy def naka su dul noonu da nga koy teg ci yoon. mais danga ko ciy gunge di ko mooy ay weccit mu koy nëbbu di ko def mais léegi après moom lay màggaale day foog na loolu moom muy dëgg te loolu du dëgg xam nga nañ yaraat suñuy doom mag ñi boo gisee ñu rawal ñu loolu dañ yar seen doom ba yow tey ruus nga def lenn li cigarette bi nga xam ne sax da nga koy tux tey boo gisoon sa sa waajur wala wala sa xaritu papa wala sa mag nangam nangam da nga koy nëbb mais léegi sa biir kër nga koy jëfandikoo xam nga di tux yoo xam ne dañ koy tere di ko nëbbut di jël alcool bi xam nga alcool bi mi ngi mi ngi jaaba jongi gauche à droite yàmbaa ji fii xam nga mais yooyu ci boppam moom mooy pousser yenn yi nga di ko def. xam nga tamit parents yi benn côté dañuy sikk benn côté moom la ñuy sikk parce que tamit ay e-, élèves yi sa bëri nañ ci élèves yoo xam ne dañuy tox seen papa lu mu war si moom mu ngi koy def dugg na école pour ñu jàngi def lépp waaye dañuy dem ba école bi ñi kat fekk dañuy tox seen papa du ko yëg bu ñëmee école dañuy tox am na ñoo xam ne yàmbaa si dañu ko tox si école yi te te loolu seen prof du si xam dara. maanaam ama amandoon doomu aadama su waree bon rek da bon su waree bon ala kul al da ngay bon waaye nit ki soo bëgg jaar si yoon bu baax kenn mënu mënu tax ba doo fa jaar waaw xam nga parents dañuy xëy liggéey jël seen doom yi bu leen école jàngal mënu mënu mënu jël responsable bi yëpp seen yaay dañuy liggéey amaana ñoom balaa ñu wàcc fekk xale yi nelaw tamit te mënoo toog si kër gi sa doom di jàng di wàcc nga ko fayal école boo ko jox lu mu lu mu dundee nga na ngay xaar ba ñëw nga nga tontu foo dara après bon du jàngi tom lu mu dundee. en plus euh, jamono bi nu fu mu toll la nag côté bi mu ngi ci parents yi côté yi mu ngi ci xale yi en plus parce que bu njëkk li yëpp amu ko woon lii yëpp am ay rëy une deux def nañ ni surtout gone yu ndaw yi yi amul woon bu njëkk bu njëkk euh, balaa ngay dégg dee di nga toog toog boo déggee dee sax yow mi sa jëm bopp yow mi xale da ngay tiit rawatina nag mag mais léegi gis nga xale yi léegi ñooy reyante seen biir waaw xaw ma affaire bi daal je sais pas man mënuma comprendre daal mais. mooy comme li ma la wax rek xam nga tey jii sa doom boo gisee ci moom comportement boo xam gisoo ko woon ci moom war nga ko mën a dindi. xam nga war nga ko mën a dindi mooy kii mala la wax ne la boo gisoon mu yore 100 francs war ngaa mën a xam ni 100 francs bi fan la ko war a jëlee tey jii boo ko gisoon tey muy te woon ci moom muy tox war nga koo mën a dindi ndax ki taal Malboro ëllëg moom mooy taal yamba ki nga xamante ni tamit tey jii moom nga gis mu jënd canette bu 100 francs ëllëg mooy dajji béteel te loolu yëpp duñ koy gis am na ci ñoo xamante ni sax du ñuy dem ba di ko nëbb seen papa yi di ko nëpp nëppal affaire leen loxo papa da koy yëg maam da koy yëg famille ñëpp a koy yëg balaa am ci benn taxawaay boo xamante ne nii luñ naan bay ci sa wu tànk soo mujjee wala bay ci sa wewu tànk di nga bay nga bay ci digg public bi te ñëpp duñ sa kàddu mujj la la ci population Sénégal. nu ñaan yàlla mucc mucc le yàlla yàlla musal musal bépp jullit te yàlla di def diine lislaam ci dëkk bi ba nit ñi kenn ku ne ragal yàlla rus ko pour ëllëg. li may tàggatoo daal mooy yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm yàlla na fi def jàmm yàlla na fi génne musiba ak balaa parce que fi mu toll nii wax dëgg yàlla yow mi am njaboot sax da ngay tiit da ngay tiit parce que tey boo xëyee yaa ngi wuti loo jox njaboot bi yaa ngi dégg mën nañ jaar ci sa ginnaaw. mën nañ mën lu nekk lu nekk rek mën na xew à tout mais yàlla mi nga xam mooy musale yàlla nañu yàlla musal te defaat ci réew mi jàmm ñu yaraat xale yi jàngalaat leen diine jàngalaat alxuraan même booy jàng français mën ci boole alxuraan. waaw di leen nuyu bu baax di rafetlu seen liggéey parce que wax dëgg yàlla li ngeen def am na solo bu baax baax mais di ñaax euh, askan wi rek ñu gën a xoolaat seen njaboot yi gën a yaraat seen njaboot yi waa te ñi nag nangoo dem liggéeyi waa te bàyyi yu bon parce que yu bon amul benn njariñ amul benn njariñ quoi waa maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal bu baax. Sénégal ñu xool suñu avenir sa ma jeunes yi laay waxal ñu xool luñ bëgg xool luñ bañ ñu xam ne am nañ ndey am nañ bàyyi sa su ne boo defee lu ñaaw soo sa yaay boo defee lu bont bi soo aale sa papa adduna bi daal dafa jeex ba pare te dénk ñëpp nañ bokk ndey bokk bàyyi jàppandoo dóorandoo waaw seq seq jàmm rawatina ñoom yow yow yow yow interview population bi li ku ne rek ñu defalaat toogaay bi ak yaxin bi ñu gën a falu ci xale yi gën a xool xale yi daal bu baax a baax a baax a baax waaw loolu daal laa am. Ah, sama kàddu gu mujj xanaa ñun yaay yëpp rek ñu booloo rek ji ma sàmm njaboot gi dëgg la sax ku baax yàlla la baaxal waaye ñu bay ñu bay suñu waar rek ba nga xam ne ay léwén du ñàkk yaam sonn na trop waaye nii la mujjee mel waaye daal ay léwén moom mënul ñàkk waaye nañu góorlu ci njaboot gi baax ndax kenn amul lu sa njaboot. ñoo ko déggandoo enquête 221 fii rek lay xewee tey li moo fi xewoon tey ci Grand dugg naa ci ruq-ruqaat yi jël naa suma mama yi jël naa suma papa yi wax nañ wax ju am solo lii moo wax li nga xam te ji moo yëngal réew mi muy tuxum yamba bi naan sangara si ak du dorog bi rey bi bëri na dañu naan Sénégal daal yàlla fi jaamu yàgg